man la Siré jigo marché central bu Thiès avenue général de Gaulle laa nekk waaw tey moom dama am lu ma nakari lool te ñu yàgg koo jooytu tey moom dama ne woon tey tey du ma tijji sama place tànk gars yi ñëwuñu ba xool lii gisa tey ba mu tawee suñ place yëpp a dugg mu ngi nii dafa fees dell ak ndox dafa fees dell dell dell autorités yi nag woo nañ leen ba sonn wax nañu wax nañu fépp fu mënut a dem dem nañ fa pour gars yi jàppaleen si mais dara dara baaxul Euh, ba tey suba ma wax ak Ousseynou Ousseynou na ma nag naa woo euh, journaliste yi dinañ fi ñëw tey bul laal place yi déjà place yi tey boo tijjee place yi plus de xaalis bu bëri lañ perte wallahi tey dama sama bagage yu bëri dafa yàqu dugal place bi nga xool place lu bëri dañ koo ñàkk tey ndax ndox mi di métti na lool te suñu autorité ñun dañuy fay suñu droit ba mu mat sek juuti chaque mois dañuy fay pétante même chose mais gars yi nañu siggi xool xool xool suñ marché bi ñun dañoo sonn ñun lii la ñu am amuñ lu dul marché lu ñuy gagné fii moom la ñuy dundal suñu njaboot mais bu ñu toogee une semaine liggéey ñu dafa metti dafa metti neen bi Bousso moo ñëw moo yor affaire rigole bi Bousso woo naa ko ay yoon yoon filmé naa ko ndox mi nu mu duggee yëpp envoyé ko même chose waxuñu ci dara mais ñun kon fan la ñu war a jaar pour wax ba ñu waxee ba sonn xamatuñuy ñuy def ñu woo journaliste ñu xool peut-être euh, ñoom den ñu dégg mais sonn nañ loolu bëgg nañu jàppale. salaamaaleykum wa rahmatulah yéen waa Thiès ñu ngi leen di nuyu bu baax ñun commerçant yi ma nekk marché central suñ ndox mi gis ngeen nu mel. depuis démb depuis depuis démb ba léegi xëy ubbiwuñ wuñ suñ place liggéey. suñ palaas yi di soo ndox yi day dugg ba si biir palaas bi bu duggee day yàq bagage ñu ñu ngi fay suñ droit yëpp ñu ngi fay juute ñu ngi fay patante te léegi ñun bu bu nawet xasee ñëw rek ñun dootuñ liggéey dañu tëj suñ palaas yi semaine bu xasee taw semaine boo xam ne dañu tëj suñ palaas duñ liggéey oo neen maire bi ba léegi faale wuñu autorité yi kenn faale léegi nag ñun amuñ benn pexe mais vraiment ñun depuis nawet bi ba léegi liggéeyatu ñu ngi tëj suñu place yi toog di xoolee te dañu fay suñu droit yëpp loolu métti na. kon nag monsieur le maire Lamine Diallo ñu ngi lay oo pour nga ñëw defaral ñu suñu. place yi parce que ñun dañ lay fay suñu droit yëpp kon na léegi ñun sonn neen jàppale leen ñu ngeen defal ñu ko ñëw neen dégg neen suñu conférence de presse bi ñu gaaw yónnee oto mais loolu nekkul solution affaire bi nekkul oto bi manque ko parce que tey mu neen ko manque léegi mu tawaat si guddi gi loolu du solution bi vraiment canal yi dafa am yoo xam ne dañ koo fat te ñoom bu ñëwee ñun dinañ leen yóbbu ba si kanaal yooyu wan leen ko te canal yooyu bu ñu ko xasee dindi rek problème yëpp day réglé wu léegi kon ñoo fi di indi oto vraiment loolu moom du solution mais ñëw waxtaanu ñun ñu wan leen fan lay affaire bi nekk ñu ñu ñu kii suñ kanam parce que ñun commerçant yi moom xamuñ wax bu ñaaw xamuñ violence ñun pour liggéey rek bu ñu defalee suñ place yi bu ñuy liggéey rek ñun amuñ benn problème mais vraiment lii moom du solution quoi oto bi moom du solution mais ñëw waxal ñun ñu wax leen canal yi ñu ngacc ko quoi wasalaam. wa rahmatullah man la Baye Abdou Diop TER marché central nekk si regroupement wax dëgg yàlla. Euh, mu dund dund bu métti ci marché bi nga xamante ni daanaka fi la ñuy jëlee lu dundale suñu njaboot nga xamante ni daanaka bu xasee ba xiin rek ah, yàqu-yàqu yi nga xamante ni ñoo ngi ci biir marché bi yëpp daanaka day day day feeñ ba boo xoolee fii ñu taxaw tuuti rek pax mu mag moo fi nekk nga xamante ni depuis daawaat géej ba léegi la fi nekkoon daaw maire bi waxoon nañ ko ko mu ni woon nag moom dina ko defar waaye boobu ba léegi gis ngeen ko saa yu gees xiinee rek waxuma la sax mu taw waaye bu xiinee rek da nga gis ni marché bi yàqu-yàqu yi fi nekk yëpp day daal di feeñ te loolu dañ see dañ see sonn ñu bëggoon nag ku ñu ci dimbali lii ñuy wax nag dañ koy wax ngir président de la République mu yëg lii mu xam ni ñun ñi nga xamante ni ñooy doomi Sénégalais yi tey dundal suñu njaboot ci marché bi sonn na lool ci marché bi ndax marché bi salte na marché bi pax yi bari na marché bi bu xasee ba taw dootoo mën a liggéey bu xasee ba taw amatoo benn yitte boo xamante ni mën nga koo dox boo xamante ni da nga si mën a dundal sa njaboot te loolu dafa métti te ñun amuñu lugul lugul Sénégal amuñu lugul lugul lugul marché bi marché bi lañuy dunde marché lañuy dunde la suñu njaboot ñu ni wi lépp ci marché bi lañ koy amee kon nag nañu dimbali ngillaahi wa rasuuli ñu ñooy defaral ñu marché bi taxal ñu marché bi maire bi nag waxoon nañ ko ko ñu koy waxaat nii waaye nag danoo bëgg mu dimbale nu ci mu dimbale nu ci bu baax a baax ñu defar ñu lii ndax nag ndax nag dafa dafa metti waaw dafa metti dafa metti dafa metti dafa metti daal lii ñii metti na trop kon nag ñoo ngi ñaan ndimbal ah, ñu dimbale ñu si jàppale ñu ci defaral ñu marché bi wax sonn nañ ci lool wax dëgg yàlla lool asalaamaaleykum man la El Hadj Fall. rue de la gare bi ba mu yàqoo yàgg na daaw heure bii monsieur le maire ñëwoon na ba fii baare ko di dama koy defar dans deux semaines. booba léegi muy waxi neen bu tawee fii day xóot presque day dem ba ay cinquante centimètres ay un mètre oto bu fi jaar daanaka day taux bi day daanu suuf danaan teel lool nag dafa ñaaw te ba mu ko waxee ba léegi defu ko dara defu ci dara dara dara jéemu ko sax pour defar. léegi nag ñu koy bëgg a xamal ne ko bu ko defarul ñun nañ arrêté taxe municipal yi ñu ko doon fay parce que moomu ñun ñu koy fay suñu xaalis pour mu defaral ñu suñu tali boobu ba léegi daaw ba léegi mi ngi naan soixante naan soixante soixante douze millions mi ngi fi taxaw depuis depuis ñaari ta nekk bi at bu jot nga ne wate nga ko budget ba pare duñ ko gis xanaa da koy def neneen na ñëw defaral ñu suñu tali bi lan la wax te bàyyi sa caaxaanam bi muy nekkee waaw te suñu a te oto boo ni maase mu ni maa bañ ndax lan fen foofu moo fa demee sama puna yàqu ndax defar tali bi nag sonn nañ lool nag fii ñu fi nekk ñëpp sonn nañ. salaamaaleykum euh, maa ngi tudd Abdou Aziz Sall nekk euh, président ñuy jaay prêt à au niveau marché central Thiès en même temps nekk délégué euh, tey tey ñu ngi fii ci Escale Nord angle 15 en face école Daniel Brottier bi. vous avez vu la situation gis ngeen ni mel ak ndox mi euh, mu nekk loo xamante ni dañ koy déplorer mais avant ñuy ñëw fii gis ngeen fi ñu jot a jaar ci avenue Général de Gaulle ak rue de la Gare la situation ni mel mu nekk loo xamante ni commerçant yi ak artisan yi nga xamante ni ñu ngi dund au niveau marché central métti ci ñoom trop situation bi nag nekk na situation boo xamante ni euh, commerçant yi. ñi fi nekk seen euh, boolu muñukaay fees na ndax ku gis ndox mu bon mi ak xet gi mu àndal jaxasoog mbalit mi xam ne situation yi kenn mënu ci def liggéey bu baax kon nag monsieur le maire Lamine jàlloo ñu ngi lay woo ci solution yi mais am na ci loo xamante ni nag dafa jot ñu waxante dëgg monsieur le maire li ngay dig commerçant yi te doo ko def dafa bari te situation bi sonn nañ ci trop lii mënatul continuer mu ñu def à chaque fois bu jafe-jafe amee ci marché bi ñu daal di bind lettre ou bien ñu ñëw ba ci say bureau toog waxtaan ak yow nga digg ñu dig yëg ñu dig dinañ toog atum yàlla duñ ci gis leen lu nduróog la ñu waxoon situation yooyu nag lañ bëgg mu jeex parce que mënatul continuer parce que bu ñu demee àll actuel fi commerce toll ak fi modernisation marché yi toll li nga xamante ni ñu ngi koy namm ci client yaa ngi koy namm ci jaaykat yi kon situation bi mënatuñu koo cautionné kon nag li ñu bëgg mooy ci daar daar nga jël say matuwaay jéem a saafara lii nga xamante ni feebar la boo xamante ni ñi muy gaañ askan lañu kenn du ci mucc muy commerçant bi muy client bi nga xamante ni dafay ñëw ci marché bi ngir di fi jëfandikoo du mucc ci situation bi ndax oh, ndox mi ngay gis nii koo gis xam ne ndox mi du jur jàmm bi ci des nag ma lay wax ni monsieur le maire sa marché lëndëm na sa marché amul sécurité amul ci benn làmp buy tàkk bu fekkee ni da ngaa dem ba mënatoo yor marché bi da ñu koy wax ñun commerçant yi ñu jëlal suñu bopp responsabilité ñu jéem a xool naka la ñuy def ak yow parce que mënuñu continuer chaque année nga ñuy dig ci ay mbir yoo xamante ni du faju boole ci na ñun ñu continuer di war dawaat say ginnaaw loolu mootul continuer boo ñëwee avenue général de lamp ya fa waroon tàkk dara tàkku fa te à chaque fois boo ñuy lay lal nga ñuy layee mooy oto bi defar làmp yi dakaar lay jóge loolu ñun yow da da ngay wax ak commerçant yi mel ni ay xale yu ndaw ngay waxal ñu bëgg laa xamal ni que ñun ñii nous sommes des responsables nous sommes des gens yoo xamante ni dañoo xam lu bari doog a ñëw ci marché bi toog am na ci yenn façon excuse yoo xamante ni mën na la ko pardonner benn yoon mais mun ñoo dëkk ci di la ko pardonner la situation devrait être telle nga jël affaire bi à bras corps mooy jëm ko liggéenti faj ko benn yoon mu jeex lu jëm ci wàllu éclairage avenue Général de bi ak marché yi bu fekkee ni lampadaire yi fi nekk dafa adéquatu dafa méngatul ak jamono yow yaa am àq ak yelleef pour war ko mën a changer du ñun commerçant yi ñoo war topp sa ginnaaw di ko di ci daw lii nag da lay avertir di jël en témoignage euh, le sous-préfet Euh, le le préfet départemental la gouverneur pour ñu wax leen que commerçant yi instant bi amatul lenn loo xamante ni mën nañ ko maye te pare nañ pour def lépp pour ñu jox leen seen aax ak seen yelleef kon mbokk yi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen jaajafal ba beneen yoon.